sargal Euh, ñu fekk nag sunu yaay yi nga xamante ne ay dëkkandoo Siteu lañ koñ bi yëngu bu baax a baax ñu bëggoon a jël kàddu tuuti si moom mu indil ñu ay baatu seede si Siteu yaay booy loolu xam si. waaw Siteu xanaa nekk nit ku baax nit ku am yëg ci doomu aadama bu rombee dina gaara otoom nuyoo am yëg ci ñun wax dëgg yàlla yar la ñu wan teggin la ñu wan motax taxit ñu koy ñaanal yalla moy ko ndam lu sedd guuy te mu jikko ci barke Cheikhul Khadim un rek lañuy top amul leneen. daan wala tamit doon mu daane ban mo mais nuñu daane daanee na mais daal lañu daan rek te daan ni nak na nek ndam lu sedd guuy waaw. waaw daan dóor mu daan jàpp daan lañu ñu wax. Ah, baat Serigne salim da nga ma mën a seedal si Siteu en tant que dëkkandoo en tant que dëkkandoo. rakk rakk xale bu firi ouvert ku booloo social macha allah amul ben problème xalé yi dëng sax da leen di déressé barki Serigne Saliou yal nako yalla may ndam lu seddu guuy ndam lu gën ci moom ci barki Serigne Saliou. RMB bi yene a ngi sétan euh, yene a ngi koy sétan fi ni ci jappu gën RMB bi. waaw ñu koy sétan do len mëna wax ci jallu tek lu lu leer tek ko ci axe dila jox dila jox ay vidéo normal ngay sétan contane bëggee ñun yeen rek lañu top top ñu kenn talibé Serigne Ba. mais su numéro mi yalla ñal dafa ko jàmm barki yonent bi. li wax yow nga fii da ngeen fi bëri fans laa wax. waaw yéen a ngi ak seen. mu mel ni ne ba mu duggee jàmm waa jàmm gën yëpp ñu ngi wax ne RMB suñu télé mu mel ni ne yéen ñi fi ngeen teg télé bi macha allah. dañ see bokku dañ see bokku maanaam allah. waajal nañ seen bopp la dëggeer nañu xaar rek ñu ñooy def lépp ñu ñooy xale nañu xaar ñooy séeréer lépp lu leer laa lay wax. mais léegi ñiy wax naan différence de poids bi diggante la dëggeer ak euh, Siteu mel ni ñu bëree bëri xaw na noo ñàkk confiance. ñooñu dañoo réer mbir. parce que maanaam chaque jour lu ma leen wax rek benn tontu wax chaque jour man ku ma wax rek benn tontu wax xam nga mooy lan bu nee runkum daje dinañ xam ko am doole. bu ñu nee runkum daje si la ñuy xam si te am na doole wala amul doole ñun ki ñu nekkal dañ kaa wóolu dañ ko wóolu parce que xam nañ ñu mu daj xam nañ mu daj si làmb yi xam nañ làmb yi tamit fan la koy yóbbu bu la dëgër amuñu lu wax ak moom waxam bër la naaj bu tàng lay bañ. muy naaj bi di tàng muy seey. musul wax lu mu def.

Baalu lañ soxla ñun soxla ñu éthiopien duñ bëre éthiopien wala espaghetti di dedet tongkol lañ yitewoo waaw wow est ce que nak tam pat ba ni ni toll est ce que mom musna bari mbeur bu ni la de guerre barke serigne touba dan na ko ëpp la sama kanam morah ñun bau ko xel sax man soxla wuma la de kan mo yor pot bi Wow. dama ko jox bokk waaw. instant bi daan la dem nag jëli pot dama laa yónni boo na ko pimbi nee na xaran loon pimbi pot bi waaw. pot bi laa soxla pot bi waaw. jaajëf jaajëf fii wala si naa nag. sara ndongaam mu bañ mu jël ak dooleem. ñun for force la ñuy dundee. nijaay ñaanal waxal waxal ak Modou moom rek si xel quoi ñun Siteu rek la ñuy topp sunu maam Siteu si xel Siteu. du parax parax de Siteu si xel la ñuy doxee ñun si xel la ñuy doxee ak moom dem jëli ko ñëwaat barki Serigne Bamba te la dégg day xaar lu bëri doole. actuellement yéen ñii waa jàmm gan instant bi na wàccaa bi naka la toll. gis nga xoolal ñun la dégg ëpp ñu ëpp ñu gëriwaay mbokk ñoo ko fa ëpp ay mbokk. déggoo lu ma la wax ñoo ko fa ëpp ay mbokk day xaar. bëgg moom jàpp bëgg moom géejewaay. kooku noonu mënul nekk ñun sunu maam la ñuy topp sunu maam Siteu moom rek la ñuy topp. dëgg bi keneen xoolal keneen lu waay yor moom rek la ñuy topp. man jongo ma gi nag jongo ma la moom moom jongo ma la jongo ma la. nyaaw kon yaa mbokk Samba mi ngi noonu ñoo ko gisandoo yaakaar naa ne gis ngeen tarkindaa yëpp génn gunge ko lii dafay wane ne nag Siteu sawaay jàmm gën fu ñu teg ko bi doy na waar sur la RMB TV et nulle part ailleurs di désormais jàppale na nag fépp fuy tàng daanu fa dem wan leen ko fii sur la RMB TV DJ Sen Mo ak son caméraman Samba désormais gars yi dara du leen ump si tàng yi noonu gis ngeen ko ne mu génnee këram bu ko defee day dem Euh, géejawaay directement xool waa géejawaay ñoom naka waa jalee waajalee combat bi gars yi fii rek la sur la RMB TV du feneen let's go gars woy wi yaa ko moome waaw nañ ko diram sargal yaakaar naa ne gis ngeen ko gars yi gis ngeen ambiance bu ñu fekkee géejawaay lii RMB TV rek moo leen ko mën a jox live en direct loo xamante ne gars yi mënoo leen ko am fenn fenn parce que le fait que nu jógee jàmbagan directement ñëw fii fekk Lac de Guiers muy soog a jóge entraînement moom it ngeen gis waa géejawaay ñu ngi ko gàttandoo mi loo xamante ne ni gars yi doo leen ko mës a gis si àdduna ñoo ngi fii géejawaay waa jàmbagan neneen pare nan nu bëgg a xam nag waa géejawaay ñoom it fan lañ toll si combat bi te it nu leen fekkee dafa mel ni ñoom pare nan ndaxte seen fa mu doon entraînement bi ànd ak moom ba dugg ba si biir kër gi buntu kër Lac de Guiers ngi nii ñu ngi taxaw si buntu kër gi comme ni ñu defoon buntu kër euh, Siteu ñu def rek mooy xool waa Guédiawaye jox leen micro bi bu ko defee ñu wax ne ñoom naka la ñuy waajalee combat bi. dañuy muñ rek comme noonu. waaw ñoo fa am lool loolu suñu yëf la. waaw loolu suñu yëf la quoi. loolu suñuy coqati la ay ñoom loxoteeg ñooñu noonu xam nga sib nga. yee kenn la wax. waaw Adja Fall. ah wala Gaynde. foofu moo wax ak yow. waaw naka yi. mu mel ni waa Guédiawaye nee nañ pare nañ waa Diamaguène nee nañ pare nañ Lac de Guiers nu ko gisee nii mu mel ni yéen am ngeen confiance en 100 pour cent si. bon da lay xaar ba jamono neex. ñemewul lu métti. daw làqu la. war na sëñ Fallou Mbacke.